asalaamaaleykum euh, chers internautes ñu ngi leen di nuyu di leen dalal euh, ci seen euh, rubrique Sénégo TV tey ñu ngi dalal monsieur Abdoul Mbaye nekk leaderu alliance pour la citoyenneté et le travail monsieur Mbaye ñu lay nuyu. maa ngi lay delloo nuyu di nuyu it internautes yi nga xam ne ñu ngi seetaan émission ñu fàttali dekkoon nga fi aussi premier ministre eh, te su suñu xoolee actualité donc eh, semaine bi le président ki Sall mu ngi waajal tournée économique à eh, Sédhiou demain suba normalement ñu ngi waral amal conseil des ministres décentralisé au niveau de Sédhiou donc en tant que ancien premier ministre déjà euh, ban bilan déjà nga nga tiré par rapport ak yeneen tournée économique euh, yeneen conseil des ministres décentralisé yi ñu jotoon def si yeneen région yooyu. waaw premier ministre conseil interministériel ak conseil des ministres décentralisé lañ doon am ci région yi ca booba ma li ma ci jàppoon mooy amoon na solo exécutif maanaam gouvernement ak président de la république gën a xam li région yi soxla ak itam ñi nekk ci région yi xam li nga xam ne lii gouvernement musoon na ko def desoon na ñu def ko itam ak lii nga xam ne li moom lañu ñu waroon a euh, def ci ci at yi dikk waaye boo ko seetee ba seet euh, tournée économique u président de la république ak conseil inter euh, conseil des ministres décentralisé mi ngi ñëw balaa élection di dikk kon Macky Sall mi ngi des ci li nga xam ne li moom la xam mooy politique politicienne te dafa soxla pré-campagne di ci jiitu ku ne man ci li ma jàpp mooy lii nga xam ne mu ngi koy jëf pré-campagne la euh, mu am nag loo xam ne xëy na moom gisu ko waaye danga koy sax yenn saa yërëm lii indi ma wax loolu mooy bu fekkee ne doon nga koo xam ne loo wax tey dindi ko suba te moom lañ ko xamal moo ko waxal boppam ndax bi mu faloo 2019 ba oote opposition ku ne dégg na mu ne bàyyi naa njuuj njaaj kon mu ngi ci loolu waaye bu fekkee ne dem nga ba yàq sa kaddu yàqal sa bopp sa kaddu man dama gisatul naka ngay sañ toog naan dinaa leen defal lii dinaa leen defal lële dinaa indi mille milliards dinaa indi mille cinq cent milliards ay junne milliards dafa war a xam ne dafa war a dal tey te bàyyi promesse yi muy def ndax kenn gëmatu ko mu ngi yàqal boppam ban ci li ci li ma gëm di yàq itam xaalis xaalis boo xam ne du xaalisam xaalisu état la ndax démocratie dëgg itam dañu war a moytu yenn yi benn yaa ngi pré-campagne keneen mënu ko yaa ngi pré-campagne di jël alelu réew mi alel boo xam ne ñëpp a ko bokk te ca dëgg-dëgg bu fekkoon ne li région soxla rekk moo ko yóbbu ca région rassemblement soxla da ngay oote sa conseil des ministres ngeen toog fekk liggéey am na liggéey bu bu am maanaa am na te jiitu na nga seet ci région bi soxla ngeen ngeen ne communiqué mu daal di jeex. donc mën nañu jàpp ni parce que c' est vrai que aussi euh, jotoon na ko fi njëkk def après ba mu arrêté woon ko fi donc euh, am na ay promesses yu bëri yi mu jotoon a def aussi mais soo xoolee euh, par rapport ak analyse yi population yu bëri def aussi donc ils n' ont pas il n' a pas tenu ses promesses en fait donc. mais du mënu ko mënu ko ndax daf ko tegul ci li mën a ne président Macky Sall. toll na foo xam ne lu mu wax suuf la ngelaw la loolu loolu moo am lu mu wax politique la jiital ak njuut njaaj bi muy waajal te loolu vraiment euh, dina ma naq di ma koy wax ci ci ci kilifa réew waaye moo ko waxal boppam kon daal na ku ne jàpp ne te umpul kenn ah, man daal ci li ma gis ñi may waxtaanal ku nekk xam na ne lii politique la te du leneen. troisième candidature euh, pour 2024. waaw ah, mën na ne mën na doon itam waajal euh, candidature koo xam ne kii moom lay jàppale. waaye lii li li nga wax moom yaakaar naa ne moom la ñu war jàpp. muy muy muy muy gën a doon candidature boobu ba léegi désigné euh, wax nga dëgg looloo tax ma ne première première hypothèse bi li nga war a jiital mooy <laughs> mi ngi liggéeyal boppam te man gisuma sax Macky Sall muy sonn ci di liggéeyal nit. man gisuma ko ci jikkoom gisuma ko ci ci démbam. voilà parce que soo analysé euh, lors du conseil des ministres bi ñu euh, soo déglu woon si euh, Idrissa Seck par rapport ak ak discours am loolu dafa mel da ko doon artu ci concernant la question de troisième mandat aussi comme ni mu defoon ak Abdoulaye Wade. waaw li ma li ma gënal daal mooy booy wax na wax lu leer wax bu leerul moom du duma ko interpréter waxal lu leer Idrissa Seck waroon na fa wax lu leer. na ko wax troisième mandat munoo ca jaar munoo ko am bul présenté wu. dañ doon ñëpp dégg ko mu leer loolu moo nekkoon seen problème actuellement. loolu moo nekk. Euh, dafa mel ni comme Mimi mu euh, moom moo xam dafa leer pourtant mi ngi woon ca biir parti ba waaye wax bi leer dañu sa Seck na jaar ci loolu bu jeex tag yëf yi day leer. donc toujours dans la concernant un peu la question du troisième mandat gis nañ aussi euh, def nañ fi chamboulement bu rëy au niveau de la magistrature lors du dernier conseil supérieur de la magistrature donc yow it est-ce que par rapport ak analyse yu bëri aussi donc il est toujours dans sa logique du troisième mandat. Euh, lépp lu man de loolu la jàpp amul loo xam ne Macky Sall mi ngi koy teg ci jamono yi ñu nekk te nekku ci di waajal prochaine élection présidentielle. prochain troisième mandat moo tax it bi ma jotee communiqué bi ba gis ci nomination yi li ma ci gën a uti ji mooy kan la ñu teg cour d'appel ndax xam nga ci wàllum élection cour cour d'appel mooy yor mbir mi mooy mujjee atte loolu daal boo ko seetee ba seet nga xam ne lii ñu ngi ko jëf ndax am loo xam ne ñu ngi koy waajal ca ca élection yi ñëw. ok ak ñenn procureur yi jot a jëlee fii andi remplacé ak ñeneen. mooy président li ma la ci mën a wax. président cour d'appel dama ko xam. ndax dañu jàkkaarloo. am na jugement boo xam ne jëm na ci man am na fen noonu laa ko mën a waxee bu ca ne te mu signé ko. mu nga signé mu ko. le le le président Amady Diouf te dinaa ci mës a bind téere ndax jugement boobu dëgg la man du am na ay coow yoo xam ne duma fa àgg waaye dafa am solo te dégg naa dégg naa keroog benn magistrat bu nekk imam ca caaro yi sant Diop ndeysaan muy wax bay jooy naan nañu xam ne bu ñuy attee ci kaw suuf ah dinañ ko digaleeg yàlla waaye itam mu am lu wax solo lu am solo mu wax lu am solo mu ne waaye bu ñu fàtte ne dañu am doom am njaboot kon li ñuy attee nañ ko teg ci yoon kon am na solo itam képp koo xam ne attee na duggal ci fen attee na duggal ci njuut njaaj ñépp ko war a xam kon bés dina ñëw incha allah ndax ñu ngi ci di bind leneen waaye dinañ bind téere boo xam ne jugement boobu dinañ ci génn li ci ne. mais est-ce que mën nga ñëwaat tuuti si par rapport ak jugement boobu nga pour leeral les Sénégalais. non dama xam ne bu bu fekkee ne toog nga ba ne ci biir jugement Abdoul mbay am na kër bu nekk fànn te loolu amut loolu ndax dëgg am du dëgg te loolu yomb na ndax boo demee ca ca ca ca fële comment s'appelle euh, impôt et génne titre foncier di gis ne titre foncier Abdoul Mbaye musul am titre foncier bu bu bu nekk fan boo jógee bëgg na saxal waxu ko xam ne dafa assermenté maanaam dafa waat nekkoon greffier bind bindam ne lii ma bind dafa am nga ne non kooku kenn waru ko dégg ndax doomam ndax doomam dafa mës a laaj emploi Abdoul Mbaye te loolu mësut a am bare nga nekkoon seede boobu mu seede nañ ko bàyyi teg fële ndax rek bëgg a jëm fi nga jëm condamnation euh, yu noonu mel te te du loolu rek am na leneen lu nekk ci jugement bi kon ku mel noonu buñ ko tànnee ba yóbbu ko cour d'appel arbitrage ah ku nekk war na ci bàyyi xel. mais de moom kese aussi am na yeneen magistrat donc euh, toujours par rapport a yenn analyse yi gars yi def. ah oui mais kon yaa ma gën a xam mbir mi. il parle aussi euh, du procès Sonko Adji Sarr procès Sonko Mame Mbaye Niang donc yooyu yëpp pour mën a nasaxal aussi peut-être des adversaires politiques. Macky Sall mësul génn ci boobu doxalin dina nasaxal opposant politique ci jéem loo condamné. dina nasaxal opposant politique te loolu am na ñu ko xamul ci nga am sa liggéey di ci dund mu lay yàqal maanaam nga nekk consultant ci mu leer nga nekk consultant di liggéey bitim réew mu oo chef d'état ba ca foofa ne ko bul jox liggéey diw man de dund naa ko man <laughs> mais dafa soxor euh, dina nasaxal opposant jaarale ko ci loi loolu moo indi parrainage jaarale ko ci loi boo xam ne c'est inapplicable maanaam kenn mënu ko teg ba mu ndax boo toogee indi parenage soppi sa constitution ne c'est la signature d'un électeur maanaam électeur bu signé xam nga kon loolu parenage parrainage yëfu këyit la waaye boo koy jëf nga wekk lépp ci informatique maanaam foo xam ne signature feeñul bàyyi kayit ga ndax loolu mënut a ne amul parrainage un million de signature bu fekkee ne candidat yi du ñu bëri sax dix candidats quinze candidats rek àgg nga un million de signature un million de signature nga jëbbal ko conseil constitutionnel ñu war ko vérifier ci lu matul weer te gis nga parrainage citoyen France ci boppam musoon na ko xalaat waaye xam na lu tax ñu bàyyi ko musuñ ko jëf dañu ne lii vérification bi kenn mënu ko ñoom ñu xam loolu ñoo la ko gën a xam moom moo la ko gën a xam waaye mu indi ko ndax rek daal di bëgg éliminer candidat nasaxal candidat opposition te te te may teg ci ne uh-huh. cour de justice de la CEDEAO ne lii mënut a ne da ngeen ko war a dindi ba tey mu bàyyi ko. avec la pense. Maître ñu àndoon ceeg moom kon Macky Sall doxul leneen lu mu teg ñu ngi ndax xam na ne xam na ne askanu Sénégal bëgguñu ko bëggatuñu ko mu des lan mu des. xeex boo xam ne mooy taamul boppam ñi ñi ñi muy xeexal ca ca lamb élection loolu am. donc ci loolu naka nga jàngatee procès Sonko Adji Sarr dina dina ci jéem dara loolu moo tax ma ne procès moom kenn nu ko bañ ndax plainte am na teeloon naa fi wax li gën mooy waxtaan ak xale bi ba mu génn plainte bi. man loolu laa jàppoon te wax naa ko fi waaye ndegem plainte bi am na xale bi nee na tooñ nañ ma doo tëb rek ne munu tane plainte am na plainte bu amee moom man kenn musuma dégg ma naan bi ñuy bi ñuy dem yoon euh, ma ma wax sax lu lu lu jëm ci ci ki nga xam ne kii moom laa doon demanteel man li ma doon topp mooy procès bi na tegu ci yoon magistrat yi ñu wax dëgg te dëgg teg ko ci li loi wax Sonko nag am na lu ko yàlla may ñi koy jàppale ñi koy topp bari nañu tey kon muy moom muy nitam muy képp ku nekk ci opposition procès bi bu amee nañ ko topp mu leer ba ca international ku ne yëg naka lay demee ku nekk di fàttali li loi sénégalaise wax bu boobaa ñu bañ a nangu décision boo xam ne du doon décision bu tegu ci yoon looloo war a ne. donc concernant aussi euh, procès wu Mame Mbaye Niang parce que euh, soo xoolee bi ñu jugee ci bu Adji Sarr ñëw nañ ci bu Mame Mbaye Niang mais Mame Mbaye aussi donc ñu bëri ñu ngi interprété de façon que ni lan moo tax porté wu plainte Birahim Seck alors que Birahim Seck aussi il a dit presque la même chose que Sonko. donc pourquoi il se focalise sur Sonko bàyyi euh, mam euh, gis nga bu ma bu ma waxee loo xam ne lii man dind naa ko dund naa ko yàgg nga dégg ñu naan Abdoul Mbaye jël na alelu Hissène Habré jël na seize milliards am na ñu ko wax topp ma leen ndax awma woon lu wóor ndax nag boo booy dem justice itam. da xam lu tax nga fay dem ak itam ndax di nga da ngay da ne am mën nga fa am ndam am na ñu ko wax toppuma leen yoon dem na sax ba assemblée nationale waaye boobu moom c'était jàpp ne c'est c'est un exercice démocratique waaye bi ñu génnee assemblée nationale am na ñu bari ñu ko wax bind ma di yeeru waaye Madiabel wax na ko itam waxaat ko topp ma ko yoon waaye bi mu génnee këyit boo xam ne wóoroon na ma ne condamnation mënut a ñàkk ci laa ko attaqué parce que man ma daal di am ndam kon bu leen seet ah kenn warut seet boo toppee kii war a topp ki yow yaay décidé lu tax ndax war nga ko waru waruloo ko na am na itam procès bu fekkee ne partie civile am na mais <laughs> noo koy bañee dina jafe nga bañ ko waaye fii itam li ma wax sànq ci te mu jëm ci ci Adji Sarr dañ ko war a topp mu bañ a doon ndax mës nañ fi porter plainte lu jëm ci diffamation dañuy seet itam ndax kumba am ndey kumba am ndey kumba amul ndey mi ngi bëgg a mi ngi dañ koy teg ku mel ni Ousmane Sonko ndax rek opposant la loolu kenn du ko nangu itam. ok donc supposons tey jii su nekkoon euh, benn genre ni ko Sonko di yàgg ko que ni euh, procès procès contre Adji Sarr bi c'est un complot politique donc lan moo tax euh, sentir nga carrément si combat bi contre par rapport ak yeneen membre de l'opposition donc Khalifa Sall ak jaar Barthélémy Dias gis nga li am solo. mooy procès bu amee li ci génn doon lu tegu ci yoon procès bi jéem ko bañ a nangu ci kaw lan wax naa la ko sànq plainte bañ a am ñu rëcc ci plant bi loolu amut procès bi kenn mënu ko bañ looloo am. ndax ndax ndax te dama dégg sax ñu naan waaw. damay am na sa sa mbokk journaliste sax bu ma ko wax waaw mais il va à l'abattoir euh. maanaam fi fi fi mu jëm dañ dañ ko fa war a dañ dañ ko fa nar rendi waaye bu demulee ci lay gën a yomb rendi ñiy wax xamuñu ne bu demulee bu bu fekkee ne demuloo sax te uti ji ñu la. yoon mën na dal sa kaw te teewuloo si dañuy faral di fàtte loolu mën nga toog sa kër ne demuma ñu àtte day gën a metti waa am déet ndax bu boobaa doo mën a sax ñëw taxaw ak sa avocat ñaareel ba lu tax ma war a wax loo xam ne avocat yi waxuñu ko boo jëlee sa avocat nangu nga dem yoon avocat yi ci seen bopp ñoo gën a xam dossier bi man xaw ma dossier xamu ci xaw ma ci dara avocat yi neewuñu sonk bul dem lu tax ma war a wax man Sonko bul dem te nag ma wax la dara man ne ni ma gisee mbir mi ndax bu demulee dinañ ko uti ji uti ji ko nag mën na indi musiba ndax benn yoon benn yoon la fi ma si am xam ndax yéen a ngi koy fàttali. muy ku ñu doon Serigne Bousso bi nekkoon Touba fa la ñàkk bakkenam bu fekkee ne sax jàppuloo war a tiire sa bopp dinañ la diri yóbbu la palais de justice ñàkk loolu fayda dafa mel ni ci ñi wër Sonko di wax loolu dafa am ñoo xam ne loolu la ñuy xaar man nag xaaruma loolu man li ma li may xaar mooy décision de justice boo xam ne day tegu ci yoon kenn du dal ci Sonko ndax opposant ndong la te loolu muy ñun fii ci Sénégal waxuma rek kilifa opposition yi waaye tous les citoyens sénégalais ak itam international boo xam ne dañ ko war a mobiliser ñu topp procès bi ba mu wóor ñu ne tegu na ci yoon et qu'il est innocent waaye complot la complot complot complot man loolu xaw ma ci dara. mais est aussi le fait de museler Sonko arrangé wul euh, une partie de l'opposition parce que soo xoolee ñu bëri il est fait de nombre par rapport ak taille bu non man man man li ma jàpp mooy kenn warut a dox loo xam ne day gaañ Sonko bo bu fekkee ne ci un opposant le le sincère looloo am waruloo dox loo xam ne day gaañ Sonko waruloo ko itam xelal loo xam ne daf koy gaañ looloo am. képp tey lii tey man li ma gëm mooy képp ku wax sonk bés bu ñu la convoqué bul dem yaa ngi bëgg a yàqal sonk avenir am moo tax it moo tax it <laughs> avocat yi déggoo ñu wax ko ndax dégg nga avocat Sonko bu ne bul dem. dañu xam ni ci ne. donc événement yi mujj a aussi nan nga ko le fait de d'extirper un opposant donc ko si. oto des forces de l'ordre yóbbu ko këram donc euh, nee nañ pour c'était pour sécurité donc yow ban jàngat nga ci loolu. loolu loolu loolu c'était c'était excessif c'était excessif ndax mën nga ko immobiliser bu fekkee ne bëgg na forcer barage nga bloqué ko waaye nag itam bu fekkee ne gis nga ne am na ñuy ñëw te ma fa woon am na ñuy ñëw ba mën a indi musiba foofu ci ci ci ci ci ci ci barage bi. faut prendre des dispositions loolu daal très sincèrement man ci li ma yaakaar mënoon na ñàkk mënoon na ñàkk très sincèrement man bu ma bu ma nekkoon chef de la police dinaa góorgóorlu ba loolu ba loolu bañ a ne waaye risque bi itam moo doon dara xew fa moom la ñu wax ba ku nekk rëccu ko. kon donc bientôt les élections présidentielles 2024 c'est bientôt dans quelques mois. donc ba léegi ñu ñu ngi gis depuis moment ak nit ñi di génn def seen déclaration Khalifa Sall def na déclaration am hier eh, Déthié Fall eh, yow ba léegi déggaguñ la ci par rapport ak déclaration président eh, élection présidentielle ñëw. waaw xam nga lan moo jar a yàkkamti déclarer wala liggéey sa candidature bés bu feeñee ku nekk mën ko nangu. peut-être ñu bëri actuellement lañ koy préparé. xam ne ñu ngi ñu ngi koy préparé itam ñu koy préparé boo xoolee suñu suñu page Facebook ak yooyu di nga gis ñu ngi dox di dem di waxtaan ak nit yi démb maa ngi woon en réunion politique ci biir Liberté. donc am na lu ñuy waajal am leneen itam lu ñuy waajal waaye na nga na nga na ubbi sa bët rek dina am loo loo ci gis. waaye mu am leneen itam. Uh-huh. politique yàq na dëkk bi dañu génn ci élection législative. ndax élection locale 2022 boo ko seetee élection locale janvier 2022 kon xam nga ñu ngi woon ci politique balaa booba di ko waajal génn ci élection locale waajal élection législative nekk ci nekk ci nekk ci élection législative jàll ca ëllëg sa am ñu ne euh, maa ngi waajal élection présidentielle je suis candidat waaw Sénégal kan la ñuy génn ci politique kan la ñuy génn ci politik mais kon politique defarul réew loolu di benn ñaareel ba kon da nga war a toog nangu ne am na jotu politik waaye am na jotu liggéey ak def leneen ñaareel ba euh, ku nekk da am sa parti ku nekk balaa ngay naan doon na candidat ci yoon sa parti war na ne yaay suñu candidat. donc euh, boobu récemment le président Macky Sall euh, nañ ko à la tête de l'Union africaine donc euh, nekkoon na fi président en exercice de l'Union africaine donc yow en tant que ancien premier ministre aussi donc nan nga ban jàngatee bilan président Macky Sall. bon man li ma doon xaar xëy na mooy. fësal lu mënoon a nuroog rupture fondamentale te boo seetee ba seet am na sax loo xam ne mënoon nañu jàpp ne ndimbalu yàlla ngi ci woon waaye muy musiba itam muy xeex bi am diggante Ukraine ak Russie yaakaar naa ca booba amoon na solo ñu dekki lu nurook les non alignés ça c'était loolu naroon na doon lu am maanaa lu am solo waaye ci dëgg-dëgg boo toogee ba ñuy bàkkoo ay siège de l'Afrique au niveau du G20 euh, ayu noonu mel vraiment pour man loolu daal amul solo. donc jàpp naa itam ne bu fekkee ne euh, sañ nañu nangu ne li jëm ci faydaal mbéyu Afrique. ci moom la jógee walla mu am ci wàll loolu moom c'est positif mu des nag léegi naka lañ koy jëfee waaye mën nañu jàpp ne Banque africaine de développement nekkoon na ca kon moom moo ko ma doxal loolu man daal ci dëgg dëgg dëgg te loolu vraiment bëgguma mënu roog dama koy ci ci ci xeexu opposant la la la laa ko wékk gisuma ci daal loo xam ne dinañ ko dinañ ko fàttaliku ëllëg mu doon wéy bu bu rafet ci moom ne bi mu nekkee président euh, lii l'Union africaine loolu lii lii ak lii ak lii moom moo ko fi jëf. dëgg dëgg mais tey soo soo soo sumee sa mbubu opposant tey jii en tant qu'économiste tey jii nan nga jàngatee ban bilan par rapport ak bilan bi ban bilan nga si tiré. bilan en tant que président du Sénégal wala bilan en tant que vraiment de l'Union africaine. non vraiment vraiment vraiment vraiment gisuma loo xam ne lii euh, doon na doon na doon na njëriñ ci Afrique te mu dox ko ci dëgg-dëgg. Euh, boo seetee sax bi ma ma wekkaat ko ci xeex bi am diggante ak euh, ak Ukraine amoon na solo mu gën a fay daal. soxla bi ñu soxla li jógee ci Russie ak Ukraine jëm ci engrais ak blé te bu boobaa dëkku États-Unis ak nasaraan yi nangu loonu war ñu nangul ne lépp dafa war a ñëw Afrique te benn jafe-jafe du ci am ndax nag xeex ba fa ne warul a tax ñun ñu dee ak xiif ak sa sañu koppar di di ndax njëg yu yokku loolu gisuma ko ci moom te waroon na teel a fay daal ne ay non aligné lañu ci ci xeex bu noonu mel xëy na di nekk ci condamnation waaye dafa am lu lu lu loo xam ne ni judd na ci xeex boobu mooy dikkaat nañu ci li amoon démb mooy est ak ouest diggante euh, Amérique ak ñi ànd ak moom Russie ak Chine ak ñi ànd ak ñoom ah ëllëg dina naqari kon amoon na solo nga teela a saytu loolu ba indiwaat Afrique ci mu yem ci ci digg ba waaye bañ a dugg ci russe fu mu nekk dañ koy xeex euh, ñun fii lañu man daal Euh, mais est-ce que est-ce que loolu wane wul ni que ne Afrique tey dafa war a wu des moyens qu'il faut donc euh, pour mën a euh, andi benn autosuffisance au niveau de l'Afrique pour bañ a aussi au niveau des Occidentaux. non loolu moo tax ma ma ma wax la ci njël ne li ma ci gis daal te muy mën a doon lu positif mooy lii ñu jàpp ne dañuy gën a fay daal mbéy mi mbéyu Afrique. war ci duggal aleel bu bari mu des nag jëf ba waaye loolu moom ci dëgg-dëgg war nañ ko nangu ndax euh, dañu rëccu sax ne 2012 taxawu ñëw ji ba boog nekkoon na ci programme jëfoon nañ ko ci premier gouvernement Macky Sall waaye lépp loo xam ne itam jotoon nañ ko ci duggal ba di ko door dañ ko daal di dindi en 2013 loolu moo indi tey gerte jafe amatul gerte amatul gerte amatul Sénégal loolu moo indi ceeb doyut autosuffisance bi ñuy wax président de la république dem na daaw ba ne deux cent mille trois cent mille tonnes moo des waaw kuy importer un million quatre cent mille tonnes nga sañoo wax ci télévision deux cent mille tonnes trois cent mille ñu ko amee rek daal di autosuffisant un cent mille tonnes yi wala un million deux cent mille tonnes dugub ñàkk na jafe na huit cent francs neuf cent francs kilo dugub loolu yëpp mu jóge ci lan te ndox am ci nawet bi wees mu jógee ci bañ a fay daal mbéy kon nañu bàyyi moo tax it ma ne jàpp nañ ko war ko jëf waaye ñu ngi xaar jëf jëf ndax nag li ñu dund ñun te di ko gis mooy faydaalul mbéy mi ba tax na tey xëy na du ñëpp koo xam sax waaye wees na mille milliards yoo xam ne mi ngi jëm ci jëlee dund ci bitim réew di ko indi Sénégal war na wees loolu suuf ne fi ndox ne fi naaj ne fi baykat yi ne fi kon ñu ñaan yàlla rek lii nga xam ne jàpp nañu ne mën na doon ndam ëllëg ci li mu jëf bi muy doon président Union africaine mu bañ a doon wax bañ a des ca wax ja donc récemment aussi Marine Le Pen ñëw na Sénégal donc seet si le président Macky Sall donc interprétation yi bëri na par rapport ak visite boobu mais est-ce que jàppoon ni aussi donc euh, par rapport ak visite Marine Le parce que moom mu doon prôné Afrique euh, siège conseil de sécurité de l'ONU est-ce que jàppoon ni aussi c'était euh, bon nekkul di négocier aussi benn échappatoire tey jii euh, présidentielle 2024 su jàllee pour bañ am ay contre le président Macky pour haute trahison. Hmm. hypothèse yi de man ma ci mën a jàpp mooy doo nekk président état africain nit ñu ñuul. bu doon sax euh, Afrique bu weex xëy na maanaam Afrique u naari waaye Afrique noire ngay indi Marine Le Pen visite officielle lu ndoog visite officielle di ko duggal suñu pale loolu gàcce la ci Sénégal man de loolu foofu laa ko teg li ko fi indi nag ci dëgg-dëgg xaw ma ko ci dëgg-dëgg xaw ma ko lan la waxante loolu xaw ma ko waaye loolu gis nga li li li sañu xale yi gën a soxla moo tax suñu politiciens yi ñuy jiite dañu war a dañu war a moytu yenn yi jeunesse africaine li mu gën a soxla tey mooy dignité mooy dignité doo seet koo xam ne kii dafa yàgg saaga africain noir lu metti ca France mu ne ci ci ñii la jóge di xeex immigration mu ñëw di ko dalal di ko di ko di ko muy officiel ñëpp di ko yëg c'est pas normal lu tax loolu ndax njëriñam la ci gis am déet loolu vraiment xaw ma ko. n'est-ce njëriñam aussi parce que c'est vrai que en tant que journaliste for nañ for nañ ci wéeru ba que ni mu ngi négocier ak certains ponts de l'opposition pour euh, avoir une petite porte de sortie pour euh, ba léegi par rapport ak pour studio yooyu noonu donc pour mu mun ko éviter. loolu itam dégguma ci dara xaw ma ci dara waaye day li ma ci mën a jàpp mooy bu fekkee ne toog na bay xalaat porte de sortie négocier xam na ne doxalul jàmm doxalul yoon bi muy toog euh, waaye nag ca dëgg-dëgg dégguma ci dara xawma ci dara li ma xam mooy li nga xam ne li moom mu ngi ci doon oote bi muy jéem a doon président de la république dafa di li gën ci Sénégal te loolu moo taxoon ñu fal ko moom te reddition des comptes bokkoon na ci reddition de comptes mooy lan mooy nga doxal loo xam ne teguwul ci yoon ñu topp la ci man damay faral di wax ne Macky Sall li nga xam ne nii jël na ko mu nekkoon engagement digganteem ak peuple Sénégal man lépp lu mu jëf rekk dam ko yóbbuwaat ca foofa moo doon oote reddition des comptes reddition des comptes foog mu am ndax dafa baax ci réew looloo tax nit toog ba du sañ ci def yenn yi ndax ragal ëllëg lii mën na ma ci fekk waaye bu fekkee ne boo toogee def lu la neex daal di négocier porte de sortie nga dem mais loolu ku ñëw rek def noonu. donc par rapport ak réduction bu dee compte ngay wax sax si la ñuy profité dugg si question euh, rapport Cour des donc euh, actuellement ñu ngi jéem a topp ay DAGE donc est-ce que jàppandi aussi ministres yi ils aussi responsables que DAGE yooyu ñu bëgg pour changer. Euh, ci dëgg-dëgg. dina ma jafe ma nangu ne daaj teggi na yoon jël ay dizaine de millions centaine de millions téeméeri millions ay milliards di ko génne ci ministère te amu ci ndigal waaye ndigal moo warut kon lépp loo xam ne def na ko c'est sa responsabilité responsabilité du comptable waaye léegi nag bu ñu leen toppee yoon ba mu leer ne complicité am na ndax nag <laughs> complicité weesul recel par exemple génnee naa lii kii laa ko jox preuve yaa nii mën nañ ko génneewaat a ah, bu boobaa justice yoon dina dina dina topp ñooñu. mais jàppoon ni ministre yi comme que ñoom ñooy ñoom ñooy parce que daaje mënul def te ministre yi aussi. responsabilité yi dafa wute am na responsabilité boo xam ne ci daaje la tegu. kon kooku la ñuy topp waaye am na procès itam buy buy boo xam ne bi dina ami bu boobaa daaj dina xam li muy wax bu waxee li muy wax juge dina apprécier ñu daal di seet waaye li ma la mën a wax man ci li ma jàpp mooy ci dëgg-dëgg gisuma ministère boo xam ne daaj dina fa génnee ay centaine de million téeméeri million ay milliards ministre di ko nangu di xaar ba cour des contre rek ñëw sa saytu ko gis ko. donc est-ce que c'est façon aussi euh, comme ni ñuy accuser Macky Sall euh, le président Macky Sall ki euh, day protéger ay nitam donc di sa au profit de ses ministres. waaw ah, mais loolu loolu loolu bari na ci nguur loolu bari na ci nguur waaye dañ ko war a xeex. dañ ko war a xeex je def ci war a ñu ngi rafetlu cour des comptes mën a génnee lii ndax. te ñu ngi rafetlu itam ñu ngi am ñu ngi am yaakaar ne du yem ci rapport ndax nag am na itam lu mu génn rapport génn ñu yóbbu ca procureur procureur teg ci loxoom ba tey gisoo ci dara inspection générale d'État am na rapport yu mu génne président ci boppam ne dama ci teg lu kudd kan la président doon magistrat instructeur dañu war a nangu ne bii régime doxalinam mu ngi wékku ci jël alelu askan wi di ko politiquer ak di ko duggal seen poos looloo am. donc ñu ngi jeexantal bu émission bi pour bañ a yàggal donc euh, dernière question concernant un peu la démocratie sous le président Macky Sall bi fi nekkee ba léegi donc avec des fois depuis mois ñu ngi euh, observer ay emprisonnement journalistes des activistes certains opposants ak interdiction marche yi ngay jot gis temps yi donc nan nga jàngatee la démocratie euh, au Sénégal si du président Macky Sall. gis nga loolu ñu ñu dellu rek ni ma la ko waxee sànq ci li nga xam ne lii moom la doon wax Macky Sall dégg naa ko mu ne démocratie ak jëfu chef d'État kenn du ko natt ci infrastructure bu teg ci ne. Abdou Diouf li ñu jàpp ci moom mooy dafa gën a sooxal de yaatal démocratie Sénégal boo ko wax mu teg ci ne Nelson Mandela buñ koy fàttaliku kenn du ne ñaata kilomètre tali la la la la la tabax chef d'état bilan chef d'état yaa ngi koy natt ci li nii mel ndax taxawal na état de droit ndax dëgëral na état de droit ndax yombal na dund Sénégalais yi kaama laaj la ci dara yow l'état de droit a reculé ndax ku ne gis na ne waxuma sax donde sax nangu nga ne décision justice yi génn tegu nañu ci yoon kenn mënul bañ ne kumba am ndey kumba amul ndey bàcc am baay bàcc amul baay moom la la fi doxal kan moo mën a nangu ne Karim Wade dong dong dong lu ñu waroon a topp ci CREI xel daf ko mën a nangu loolu c'est pas possible mais loolu c'est pas de la justice loolu du justice ñu ñëw ci parrainage bi ñu doon wax sànq yow nga génne loi boo xam ne yaa gën a xam ne kenn mënu ko appliquer kenn mënu ko jëf cour de justice de la CEDEAO ne la lii danga ko war a dindi méngoowul ak li nga xam ne li mu ngi ci sa bloc de constitutionnalité maanaam sa constitution wax la ko mu leer nañ kenn duma ko topp ana démocratie constitution bi nga xam ne mooy maanaam mooy mooy fondation réew nga koy foyee ndax dañu faral di fàtte ne ci fukki at soppi na ko ci ci at bu nekk ñaari yoon euh, ñaari at yu nekk benn yoon mais kooku kooku mooy lan kon bilan Macky sàll ci li jëm ci démocratie yàq na fi lu bari nit yi dañ ko war a nangu ba noppi nag ma dellu ci li nga xam ne lii moo ko doon wax mu ne yëfu troisième mandat moom waratu fii kenn waratu ko fi wax mu ne ñu ngi ci constitution bi ndax 2001 lu dugg limitation mandat 2 waaye li ma ci yokk man te ñu ngi ci exposé des motifs du référendum li may ci yokk mooy naa inaliénabilité maanaam kenn kenn kenn du ko mënati laal léegi ndax nag sonn nañu ci ci ci ci ci lu nii mel anamu tey mën na ne mënut a ne. débat sur le troisième mandat. <laughs> dëgg la ñu naan mi waxagul waxagul mais ci yoon dafa war a ne te wax na ko 2019 bi muy oote dialogue dafa ne bàyyi naa njuuj njaaj sama dernier mandat la bind na ko ci téeréem page 165 mon deuxième et dernier mandat kooku mën nañu jàpp ci moom lii Sénégal nar a jàpp ci Macky Sall mooy dafa di koo xam ne day wax di weddi wax waxeet te loolu sax man dama jàpp ne la ci suñu réew waaye boo bàyyee sax lépp lu jëm ci démocratie ak respect de la loi ci koo xam ne kii jën na loxoom waat ci kanamu yàlla ak askan wi ne di dina dina topp yoon nga jëm ci li mu fi jëf mais infrastructure yi muy bakkoo mais loolu moo gën a yomb ci réalisation moo tax it moom itam mu ne woon Nelson Mandela booy wëy wëyam doo ci boole kilomètre tali ndax loolu ku ne mën na ko da ngay marché xanaa boog ñun ci loolu la ñuy oo oo oote li jaroon ñaar nga indi ko ci benn loolu ñu ne waaw ki jàmbaar la waaye li jaar benn nga yóbbu ko ca ñett loolu moom ku ne mën na ko wékk ko ci lan leb bu dul jeex ba tey tollu nga foo xam ne mënatul Sénégal mënatul leb sax faf war a oo Fonds monétaire international Fonds monétaire international ne la waaw nangu naa waaye yokkal njëgu électricité yokk électricité mu gën a jafe ci ci askan wi gis nga président de la république ci di jëm ci wàllum koom ñu ngi koy natt ci li tubaab di wax pouvoir d'achat ndax li ñu mënoon ak lu tuuti li ñu amoon ñu mën nañ ko ba tey am dafa yokk am dafa wàññeeku toll nañu foo xam ne pouvoir d'achat Sénégal yi dafa wàññeeku sudul politiciens yi bokk ci régime ndax séddoo bi ci am ndax alelu askan wi nga xam ne ñu ngi koy aakimoo di ko di ko ñëw ñoom ak seeni rakk ak seeni goro ak seeni njaboot looloo am kon gisuma ci bilan Macky Sall di ko naqarlu nag ndax ca li muy door amoon nañ ci yaakaar lool waaye gisuma ci démocratie bu am yokkute gisuma ci performance économique bu am yokkute ndax lépp loo xam ne itam ñi ngi ko wekkoon ci ay lu dul dëgg wax naa sànq lu jëm ca ceeb ba mëtul juróom benn weer mun naan deux cent mille tonnes trois cent kese buñ ko béyoon daal di mëtal autosuffisance ci koo xam ne kii des nga di importer un million quatre cent mille tonnes foo jëm boo demee ca gerte ga ñu ne un million huit cent mille tonnes un million sept cent mille tonnes Sonacos ne la bi ngay wax loolu awma soixante dix mille tonnes kooku daaw la woon ren Sonacos ne amaguma quinze mille tonnes ana gerte ga askan wi di gën a sonn njëg mi di yokk dëgg am na wàll boo xam ne ci njëg mu yokk jóge na ca xeex ba am Ukraine Russie mm-hmm. waaye li ci ëpp mi ngi jóge ci loo xam ne li amatul baa bokk mu raar muy dugub muy jeneen alors que am nañ fi ay suuf lu jeex pour mu fa nekkul nekkul seen mëbët de lii askan wi di dund ba mu gën a féex mu gën a neex ci ñoom si dëkk bi gën a naat loolu nekkul seen mbëbët mbëbëtu politicien dëgg mooy naat toog defaru war a dem nag bu benn mandat amee ñaari mandat am ma seet naka laa ciy génne loolu mooy indi waxtaan ci troisième mandat ba waxtaan ci may leen ma porte de sortie. ok donc ñu fàttalee fàttali ne euh, suñu entretien tey Abdoul Mbaye la ñuy dalal euh, muy leaderu alliance pour la citoyenneté et le travail nekkoon fi aussi ancien premier ministre euh, monsieur mbay ñu bàyyi la nga tàggatoo. non xanaa di leen di jiital war leen a jaajëfal ndax li lii am na solo mën a toog ba waxtaan loo xam ne mi ngi jëm ci doxalinu réew mi mi ngi jëm ci naka la ñuy doxalee réew mi. naka la ñuy doxal réew euh, mu am itam loo xam ne ñu ci àggoo ci waaye bari na ci journaliste yi may wax ak sax ci ñi ñi bokk ak man daan ma non président euh, da nga war a gën di feeñ ci télévision et cetera. Ah, c'est vrai aussi depuis ci ci ci ci ci média yi yooyu lan gis nga ñaar ñaar ñaar moo ko mën a indi benn bi mooy. boo yàggee al ngay faral di di feeñ lool ci ay télévision ak rajo dañ lay mujjee jaawale chroniqueur man nag homme politique la duma chroniqueur loolu di benn ñaareel bi itik it te yaakaar naa wax naa ko sànq am na solo mu am jotu politique waaye app itam mën a am ndax réew mënul dëkk rek ci politique politique politique te Sénégal nag kooku le juge Kéba Mbaye sax daf ko doon wax di ko di ko di euh, di ko naqarlu ne dëkk boo xam ne politik rek lañuy wax politique rek mooy feeñ ci média waaye nag boo seetee dëgg dëgg dëgg ci homme politique yi nga xam ne ñuy interview dëgg la ñuy jiital te loolu am solo moo taxit ma bëggoon na daaneel ci loolu ngay laaj ñuy tontu loolu bariwul de loolu bariwul te bokk naa ci ah ci li ma xalaat ci li ma yaakaar bokk naa ci ñi gën a am ay interview ndax nag euh, waxtaanu média warut a yem rek te ci lii la lii la coow non da war a waxtaan di jëm ci programme war a di di jëm ci lu tax lii kii war a dem nga teg ko fu leer ñu xam waaye dafa war a dem dafa war a dem ba ca da ko war a rey loolu moom bëgguma ci <laughs> donc daal waxtaan la war a doon te nag loolu mënoo ko def semaine bu nekk ñaari wala ñaari yoon ci semaine bi ñetti yoon ci semaine waaye ci li ma xalaat man lii interview dëgg lu lu mel ah ñii ñi ñi ñi ma ci ëppale ba bariwuñu waaye dama jàpp itam lii lii lañu ñu war a fay est-ce que gars yi jeunes yi bëgguñu aussi sa présence un peu si réseaux sociaux yi gars yi dina gën a nga miinal leen seen kanam aussi comme par rapport ak yenn opposants yi ñu ngi def ak yooyu. waaw réseaux sociaux yi moom loolu moom moo ba foog ci. li li li nga wax dëgg la sa xalaat tout le temps sa page Facebook ak Twitter aussi. Hmm. waaw loolu moom am na Twitter ak Facebook ak page Facebook toujours suñu xalaat dina ci feeñ waaye dëgg la am na loo xam ne tey euh, surtout xale yi soxla nañ ko. muy réseaux sociaux yi ñu la ciy gis ngay ngay ngay euh, wax loo xam ne wax yu gàtt lay doon waaye wax yu gàtt itam yenn saay du doon waxu njëriñ dëgg <laughs> kon am na loo xam ne war nga ko nangu waaye ah euh, mu mën a jóge itam ci interview dëgg ndax gis naa ne da ngeen di faral di dagg ah, voilà di génne par benn benn loolu itam ñu ngi ci ndax ñu ngi am benn Euh, secrétariat national bu communication euh, yeesal nañu ki koy dina indi nañu koo xam ne kii vraiment spécialiste la ci ci communication te mi ngi liggéey liggéey bu rafetlu bu bu jëm ci loolu. donc balaa ñuy tëj euh, sa candidature mën nañ ko xaar bientôt ah xam naa ne du ñu génn mois de mars te amuñu ci luñ ci luñ ci mën a wax. ok ñu ngi monsieur Boye. jërëjëf.